urbain bu Mbour jaxoon na ñi nga xam ne ñooy nappkat yi ñoo fa ñëwoon di wane euh, seen naqar ñaar si ñoom lañ jàppoon euh, ni ki talaata si. dafa am suñu doom yoo xamee ne bi nga xamee ne tefes gi dafa nekk si danger ñu wax leen pour ñu def sécurité en tef sécurité si booru géej gi li ko dalal littoral bi yëpp lépp luy bandi ñu jëlee ko fi lépp luy lu ñaaw ñu dindi ko fi ba yàlla def ñu santaane. ne nañ am ñaari fan yoo xam ne gaal yi nañ toog buñ dem géej am gaal yoo xam ne dañuy jalgati dem nëbbu ji téeri sa gaal yi nga xamee ne mooy jaaykati gaal ngët yi ñe dem tikki seen i buum ñee dem sosol ñu ne dañ leen saaga dañ leen def lu ne xuti seen i mbaal lu nekk ña wax ko te loolu dara amu si li nga xam ne nag mooy mébét bi nguur gi am ngir samp ñaareel quai de pêche nga xam ne mooy bee bu tefes euh, daanaka moom moo leen merloo ba euh, ñu fut ndax jàpp nañ ne daal projet bi daal euh, amul benn sens. wax ak man ne ma isin la ñuy def fii ma leen di usine bu amee fii te nit ñi amuñu fuñ aj seen gaale wala amuñu place boo xam ne yaatu na ba pare suñu kër yaa ngi nii te usine mënoo xam usine lu mu doon ëllëg boo ko defee mën ñu gàllankoor ñun lay lor rek. li ma yóbboon kii police lenn la woon ma ñëw fekk préfet. préfet ak kii commissaire ak kii waaye ni ñu koy wax de des na inspecteur ñu taxaw ma leen salaamaaleykum ñu ne maaleykum salaam ma leen préfet ndax mën naa leen a ñaan leen ñu ne ma ma leen de li ngeen bëgg a xalaat fii pour affaire de Kédépes bu ñu leen ko mënoon a ñaan ngeen yóbbu ko feneen dina baax ndax diggante bi ñu am ni yaatuwul te suñu gaal yi fi leen koy defar ba pare jege na kër yi te géej gi avancement géej gi day ñëw bu leen ko mënoon def feneen dina baax. si laa xëy suba ñëw toog fii nii si suñu bundu ga di di am lu may def jek jek rek lu mat ay auto yu bari ñew auto police bari ñew auto ba ñew nak si lañ ma jël yobuma police téma fa sax ci doli japp nañ ne tamit euh, projet bi projet bu risqué la ndax euh, li nga xamne mom moy région côtière bi du ko fa may dara ku xam mol ku xam napakat xamne napakat germi la ku xam nappkat xam ne nappkat jàmbaar la lii ci ci biir quartier bi la biir quartier bi bu ñu bëggee ñëw dañ fiy indi usine dañ fiy dañ fiy def deuxième quai de pêche te àll bi nekk fi fii ba baaleen ñu ne fi lañ ko bëgg a def ñun ñoo lànk tey ñoo lànk suba ànduñ ci tey ànd ci suba bañuñu ko nag mais fi ñu ko bëgg a def bëgguñu ko te duñ ko bëgg a tey duñ ko bëgg ëllëg jamono yi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi euh, mer nañ ba futt ndax euh, euh, jàpp nañ ne ñi nga xam ne ñoo moom moo leen merloo doon jàppante ak seeni collègues yu Fass Boy nga xam ne dañ fa ñëwoon di napp ak li nga xam ne moom ay mooy filet mono euh, monofilament euh, te nga xam ne nag dañ ko tere rax ci dolli nag euh, ci xeex bi nga xam ne jamono yi sumb nañ ko nee nañ ñu amal benn ndaje bu yaatu ci gaaw bi ñu